ñu doore ko ci assemblée nationale ma jigéen euh, daf mel ni gaañu pare nañu ci li nga xam ne mooy jubbanti gi ak jag-jagalaat gi ba bind euh, président euh, Diomaye fi ñu doon daal moom la ñuy déglu su validé li nga xam ne moom la ñu rek après ñu daal def euh, joyante mbiri Ousmane Sonko mën a dem def déclaration politique générale am. waaw son yu bu. Mhm. dëgg yàlla nekk na loo xamante ne nii sénégalais yu bëri ñu ngi ko doonoon xaar. Mhm. ndax euh, coow li bëri woon na ci lool ba ñu gisoon Abdou Mbow. muy waddaka dal ci euh, mbirum Ousmane Sonko boo boobu nga xam ne joxe woon na ko léegi nag. président bi ba mu génnee keroog bu muy jàkkaarloo ak journaliste yi. Mhm. moom indi woon na ay leeral. taxaroon na ak ñi nga xam ne ñoo di waa assemblée wax ak premier ministre bi li ñu doon xaar mooy que ne ñoom ñu jéem a rectifier li nga xamante ne ni moom lañ fa def su ko defee mbir mi mën a yomb mm-hmm. léegi nag ñoom bu ñu wax ne président bi moom moo ñu yeexal parce que ñëpp xamoon nañ ni mbir yi ni mu demee foofu soxlawul sax ñu ciy ñëwaat comme léegi nee nañu euh, président assemblée bi dina euh, bind président bi euh, su ko defee moom bu valider rek dina yomb comme ñoom bëgg nañu def te ñee ñoom ñoo doon yéexal mbir yi bëgg indi ay bëgg fi indi fi situation boo xamante ne ni dem nañ sax ba di wax ne mm. crise institutionnelle la te mbir yooyu waru fee war a mën a nekk loo xamante ne ni dafay indi ay détails mm-hmm. wu président Macky Sall ba mu fiy toog gis nañ ay premier ministre am ba ñu ñëwee. Mhm. lii musul woon doon problème. déclaration politique générale bii ñuy wax wax nañ ni Abdou Mbow to Abdou Mbaye mi fi mhm. njëkkoon a nekk premier ministre si. Euh, jamonoy Macky mhm. toog na pratiquement plus de cinq mois wala six mois yoo xamante ne nii doog na dem assemblée keneen keneen noonu léegi nag pourquoi ñoom ñu bëggoon jël mbir mi rek parce que ñii ñoom ñooy déranger peut-être ñoom supporté wuñu ni ñuy doxalee léegi nag mbir mi leer na bu fekkee ni moom dañu ne ci président bi rek la des. jàpp mm-hmm. naa ni balaa août bii di jeex incha allahu rabbi dana ko dana dem foofu noonu su ko defee li ñu bëgg ñoom. mooy que ni premier ministre bi ñëw jàkkaarlook ñoom ñu ku nekk contrat wax li nga li nga xalaat dina am ci kàttanu yàlla. Hmm. parce que sénégalais yi loolu la ñuy xaar. jàpp nga ne ak déggoo dina ci am ndax boo seetloo ku mel ni Abdou Mbow doon na fa ruux ruuxal ay loi est ce que bu buñ ca dëxëñee dara boo déggee ñu naan ñoo ngi déglu président est ce que dina validé. Hmm. mooy ndax buñ ca fekkee leneen loo xam ni dafa dafa dafa nekkul labaj. gëw ma ne loolu <laughs> dina mën a nekk parce que ku xam député bii di. Euh, Mamadou Mame Diop euh, non pas Mame Diop. Ah. Euh, bu Pastef bi damay fàtte turam. Euh, kii waaye ki nekkoon mandataire Ousmane Sonko. waaw kay Ayib Daffé nga fa. Amadou Ba moom moo remplacé eh, kii di Birame Souleye. ñoom du ñu seetaan yenn yi ñu ko fay eh, ñu jàng lañ xam nañ li xew xam nañ teg teg ci li muy wax. donc jàpp ma ni Abdou Mbow li mu doon wax noonu waxu ku ku ku bëggul a dem la. ama ñoom bu ñu soñoon tey jii ne dañuy continuer di nekk parce que bañ nañ président bi tas li nga xamante ne nii wala mu dissoudre lii di assemblée nationale. Mhm. ñoom su fekkee ne lu jàll. luy dem ci président bi la sax mhm. moom jàpp ma ni war na ko mën a signer li ñuy wax daal mooy que ni oh. ñoom dañoo falsifié woon lii di règlement yi ba premier ministre bi mënuñu ko reconnaître fële ci assemblée premier ministre bi taxaw ne leen ma ñëw bi assemblée parce que reconnaître leen ma mhm. léegi li ñu bëgg mooy ñu changer affaire yi ñoom nee nañ dinañ changer as président assemblée bi dina bind euh, président de la république su demee ñu valider su ko defee ñu mën a jàpp date premier ministre dem jàkkaarloog ñoom c'est simple d'accord jaajëf euh, Dieg Diop alaaji noo gisee assemblée nationale daf mel nii daal Ousmane Sonko nga ca yoon wa bu ñu sukkandikoo daal ci li xew. bind nañ euh, président lettre su fekkee validé na rek Ousmane Sonko léegi ñu gis ko foofu la ci assemblée. waaw xam alhamdulilah. ñuy sant yàlla. Euh, ci ginnaaw bi ñuy juum nangoo ni juum nañ. Mm-hmm. daal di jubbanti seen ak njuumte. Mm-hmm. njuumte goo xamante ni bii yàgg nañ koo def parce que ñoom dafa am lu ñu jàppee woon assemblée nationale dañ ko jàppee woon bërëbub daal ñoom ñoo jiite bu leen neexee jiite ko ci caaxaan. Mhm. nu leen neex lañ koy doxale mu am doxalin woo xam ne doon nañ ko doxale boo xam ne bi méngootul ak sart yi nga xamante ni. Mhm. Euh, mooy sart sax bërëb ba. Mhm. bërëb ba ci boppam. di doxin ci doxin woo xamante ni bii daal nu leen neex lañ ko doon defee nu mm. leen neexee roppi lii roof lee roppi lii roof lële mm-hmm. bi yàlla dogalee nag lii amam ñi nga xamante ni bii ñoom lañ fal premier ministre ba daal ne lee jubut de mënuma faa wax man li ma fa war a wax si muy ak njub koo xam ni war naa ko faa indi mm-hmm. ginnaaw fee dafa dëng mm. jubbantiku leen ma doog a dikk boobu nag nag ñuy wër dëkk bi naan way taralal mbalalal te fekk dañ nit ki dana la jubbantikul rek. Hmm. sart yi nga xamante ne bii moo tënk assemblée nationale nga xam ni falsifié da caa am ak jubadi. Hmm. réparé leen ko. Hmm. lànkoon nañ ko nag waaye mujj nañ nang ko. xam nga déclaration politique générale bi son bu waaw nga xam ni moom la le premier ministre Ousmane Sonko war a def. bokkut ak déclaration politique générale yi daan am man damay wax ni bu dee am na benn boo xamante ni. Mhm. sax peut-être dina ko xawoon a méngoo. waaw. Euh, mooy bi nga xamante ni bi muy déclaration politique générale bi fi Idriss Seck doon def nga xamante ni nit ñi doon nañ ko bàyyi xel. Mhm. mais man dama seetlu euh, premier ministre yi mës a taxaw jàkkaarloog assemblée nationale toog ca péncum ndawu réew. waaw mosu wax après lu ñu doxal. dañuy wax rek dem. maanaam dinañ ñëw rek uniquement pour sëlëm askan bi wi sa Seck. dane woon dina dooleel góor xeex njublang moom hmm. biñ ko fi jëlee dañ ne ko da def ak njublang hmm. loolu mooy li nga xam ne moo ko fi jëlee. ci gouvernement fast track déggoon nañ ko fi. ñoo xam def nañ déclaration politique générale wax nit nañ doxal nguur goo xamante ni bii yëf yi day gaaw booba la yëf yi jeex. gën a hmm. yeex. gis nañ fi gouvernement de combat. Mhm. combat bi moom defe naa ne bu fekkoon ne ngir mbirum askan wi la. defe naa ne loolu moom. Mm. gisuñu ko waaye. combat bi daal booy lañ ah, doon combat xeex ak askan wi moom mooy li nga xam ne moom lañ doon def. booy yi waaw premier de combat waaw bu premier ministre amutoon waaw d' accord. Mm. mais gis nañ fi Amadou Ba daal di fi Amadou moom gouvernement de lan la. bosam bi. moom mooy bi mu fi mujjee. gouvernement de liggéey gouvernement de liggéey. mais gisuñu ci benn boo xamante ni mm. euh, dox na. depuis que ñu ñuy wax askan wi moom mujj gi affaire yi dafay nekk ci ñoom rek ay slogan mhm. yoo xamante ni bi dañuy wax mais jëf moom askan wi sax du leen fa xaar mhm. askan wi di leen leen déglu ba ñu wax li ñuy wax ba pare may askan wi ci seen jëmi bopp sax dañ naan ñii euh, li ñuy wax dara lañ ci du def parce que dañ leen di dig loo xamante ni bi mhm. maanaam daanaka éléphant blanc la bu kenn mësta gis lay doon sénégalais yi nag gëm nañ bii nga xamante ni bii moo war a ñëw muy déclaration politique générale bu Ousmane Sonko bii. liñ leen di wax gëm nañ ni dinañ ci teg seen bët. Mhm. moo tax bii nekk bu spécial. boo xamante ni bii réew mi dañ koy xaar et puis dañ koy déglu. moo tax député yi nga xamante ni bii tey ñoom ñoo fay nekk. Hmm. Euh, nañu nite. Hmm. te xam ni bés la boo xamante ni bii dinay am rendez-vous ak histoire. boo xamante ni bi tey képp koo xamante ni kii am nga fa ab taxawaay taxawaay boo xamante ni bi taxawaay eh, askan wi la hmm. askan wi dinañ la saluer mais képp koo xamante ni ki am nga fa beneen taxawaay bu waroog loolu hmm. booye boo xam ni sa bopp ngay gàccaal ak say sët ëllëg parce que bii dafay nekk boo xam ni ci la yëf yi soppeeku ñi nga ki nga xam ne moom mooy ñëw ngir wax ak sénégalais yi Sénégalais yi dinañ ko bàyyi xel déglu ko du romb du yam sax Sénégal mais Afrique sax danañ ko déglu. d'accord léegi li li nga ci seetlu mooy nag ndeke assemblée bi li ñuy dox lépp dañoo mel ni rek euh, silmaxa gu nekk ci yoon te yor tors maanaam ànd la ku koy wan yoon wi. Mhm. ndax Ousmane ko bi mu ñëwee. Mhm. daf leen a wax ni leen que lii ngeen nekk normalul mhm. ñu xëccoo dem dikk daa bañ dem ndeke fekk si nañ ko ci loolu kon dañ ci jàngee ne nekk assemblée. toogaayam jubul woon. non boo koy misaal sax. mën nga ko misaal ñoom chauffeur bu yorul permis lañu woon. di dawal ci tëli bi alkaati ne pour ne leen ana sa permis nga leen sama fu ci ay mbirum permis faale wu ñu woon jëf yi quoi ñoom. li ñu hmm? doon doxalee waa mais. dawal te amoo doon def maanaam li ñu doon dawal yëpp ñoom nekkuñu ci njub. wala dawal oto bu amul carte grise oto bi amul carte grise ci loolu lañ nekk mu amaat beneen chauffeur chauffeur oto miite leen oto ngeen miite ko ñu ne non ñoo lànk duñ ko miite oto bi yàgg kii dawaloon na ko <laughs> Amadou Ba dawal na ko te nii la ko ah, dawale te nii la ko doon dawale ñoom xoolal <laughs> nii la doon dawale oto bi waaw puno yi duñ ko sensé puno yi ne leen puno yi baaxut ne waaye duñ ko sensé daan na ci daan na daw waaw carte grise bi garaaw dina lijjanti ba arrivé waaw loolu la leen waa ji wax te Abdou Mbow wax na wax joo ah. ne nii dafa euh, loolu mooy interpellé nit ñi mu ni dafa foog ne bu ñëwee foofu dañ koy laaj problème mu Adji Sarr non non loolu Ousmane Sonko daa mën a dégg ci Adji Sarr lu mu déggul woon xam nga xam nga xam nga loolu ay député yu amul personnalité sax ñooy wax mhm. ñooy wax loolu quoi mhm. yow nit ki ñëw ngir wax fu ñu jëmale réew mi ngay indi wax yu ñàkk fayda yooyu di ko bëgg a souligner ci kii bi xam nga xalaat bi sax moo lay wan député yi seen niveau fi ñu toll quoi mhm. vraiment ñi waru amuñu place assemblée nationale quoi ah, ah, billaahi amuñu niveau assemblée bu normal woon kër ku nekk assemblée boo xamante ni bi yow préparé xoolal ko yaa li ma koy waaj a xas waaw xam nga loolu mooy député yu ñàkk fayda dëgg dëgg ñooñu askan wi askan wi yoon jël nañ ay nit yóbbu leen pour ñuy xas ay nit. am na maire boo ci dégg sax mu naa léegi man la man la ragaloon garaawut mën naa ñëw du ma ko xas. Hmm, ñàkk fayda. maire boobu nga xam ni. nañ toog di wax wax xam nga nañ nekk nit quoi vraiment dafa am yoo xam ne sony bu. billaahi doo xam lii lan la. doo xam lii moom mooy lan. donc en tout cas nañ delloo si suñuy xel. d'accord te xam ni. Hmm. yëf yi moom lenn la. Hmm. mooy que ni sénégalais yi bëgg nañu déglu premier ministre. ñu wax ñu fan lañu jëmale donc loolu képp bëgg na déglu loolu premier ministre pare na pour wax ak sénégalais yi donc léegi li am solo mooy député yi nañ mat ay ndaw yu nekk ca pénc ba nañu honoré seen bopp am ab taxawaay boo xamante ni bii ku leen dégg mhm. euh, daal ne ah ñii de wax dëgg fa yàlla tey donte euh, amoon nañ taxawaay boo xam ne daanaka waaye gis nañ ñi màgg nañ ci mhm. diggante bi dëgg la mais nañ bañ di tuutal seen bopp quoi parce que am na lu ñu fay wax yoo xam ne bi seen bopp la ñuy xeeblu. d'accord mais du ñu tuutal ki nga xamante ne ki moom kooku suñu borom bi yëkkati na ko ba noppi quoi xam nga tey parrainage bu la yàlla yëkkatee ba pare bi yàlla yëkkati na la. waaw dëgg dëgg waaw donc loolu nañ ko xam. aywa loolu.